tey dañoo daje woon fii euh, comme ni ñu koy defee ngoon bu nekk vingt euh, dix-neuf heures bu nekk dañuy rassembler éléments yi balaa ñuy dem si terrain bi donc euh, yeesalaat instruction autorités yi ci période de couvre-feu bi ñu nekk di leen xamal ne diggante vingt heures ba six heures du matin warul am circulation auto nit ñi tamit war nañ toog seen kër yi sauf ko ñi nga xam ne yor nañ autorisation bu préfet def wala gouverneur wala ministre de l'intérieur ñooñu war nañ mën a war nañ leen bàyyi ñu continuer di dox seeni seen yitte di doon fàttali xale yi tamit comme fan yi dañu dégg ne dana am dafa am ay violence ay acte de violence yu ñuy exercer ci yenn citoyens yi ñu leen fàttali ne loolu kenn santu leen ko kenn digalu leen ko te bokkul ci liggéey bi liggéey bi dóore bokk ci saaga bokk ci xaste bokk ci liñ ci war a def rek mooy euh, ku ko respecté wul ku nekk ñu teg la si yoon ñu si yoon mais waruñ la dóor waruñ la saaga acte yooyu nag ñu ngi koy regretter su fekkee ne am na te autorité bi tam jël na ay dispositions yu mot ay motuwaay yu mot ku ko ci def kenn ku ko ci def ku nekk di policier te ñu ba ñu ràññee ko ba xam ko ay daan yu métti dana dal sa ko duñ ci protéger kenn duñ ci làkk kenn loolu daal la waxoon ne dañ leen ko eggee di leen remercier ci ñëw bi ngeen fi ñëw merci beaucoup